Baldé ak Aziz Ndiaye seen coow li tàmbaleeti na démb la Awa posté ci ay publication yuy visé Aziz Ndiaye wax na ni ni Aziz na ko fay xaalisam muñ na ba sonn léegi lim mën mooy wax ci fàttali Awa Baldé dafa jaayoon Aziz Ndiaye ay terrain ca Ngaparou bi fu toll danaan nan ko jox Awa Baldé dem na sax bay waaji dérapé nee na man su ma naree am comme ni mu amee ma toog di naan som bi moo ma ko gënal man duma leble 4 millions faye ko 9 millions wala falsifié ay këru jàmbur ñëw génn leen wala détourné ay bateau engrais